soxna si moo ñu yónni woon mhm. liggéey bu mu doon andi ci gàmm gi mhm. mu doonoon ay nag mhm. euh, mu toll ak juróomi nag mu boole ko addiyaam gii ñëwoon jébbal si la ko ak sant la ak ñaanal la nga yàgg fi te wér euh, ci dolli ko nag foofu la ca yem sama kàddu yu bopp la man Saliou Samb euh, Mbacké te kàddu yu taalibe rek la mooy kàddu yu siyaare la ak sant la di yëgal ni kat fas yéene wu doon ay jullit ñu dëggal suñu njulli suñu kem kattan te it donte lott nañ ci di sàkku ndimbalu yàlla ak sëriñ bi fas yéene doon yi taalibe yu fas yéene dëggal sunu taalibe nun donte lott nañ ci di sàkku ndimbalu yàlla ak kàttanu sëriñ bi ndax nun kat yoon wi la ñu juddu ci la ñu yaru ci la ñu yar jàngal nu ci yàlla nag moo ma boole ak suñu Béthio sëriñ Saliou def ko muy sama sëriñ eh, ma am ci turu ràññiku nag ràññiku gay la ko indi mooy fa ma féetale ci diggante jàngale diine ak alxuraan kem li ma ci xam ak jàngale taalibe ak di waxtaan ak mbooloo mi ci sëriñ bi lu dollu seeni pas-pas ak di taxawu tuddum doom yeeg maye si yeeg taxawu niiw yeeg yu mel loola nag moo waral bi mu defee soxna sii mu def ko muy sama ndey ci kër gi def ko muy sama jëwriñ ci liggéey ba ba loola amee it mu féetalawaat ma ca wet googa foofee moo fa yóbbu sama tur ma lay xamal ne Mbàkke nun de ay taalibe la ñuy doon te doon lu dul moom la ci lañ juddu te ci lañ fas yéene faat bu ci dara lépp loo xam ne nag doxin woowee dox naa ko ca taduni moo xam lu ma wax la moo xam lu ma def la moo xam lu ma defee mm. maa ngi la koy tuubal ci lu ma yëg ak lu ma yëgut te di la ñaan bu ma yëpp ñëblu ci dara noo ko bëggee rek noonee rek fa séeni wun lu dul noo ko bëggee rek na nga xam ne daal man moom foofu rek laa ne mooy noo ko bëggee rek mag waaw jërëjëf wallaay sëñ Bay dama tudde sama doom waaw moom mi doomam sëñ bi tudde na la ko mooy sëñ Muntaxa may moom jërëjëf Mbacke wutunu dara yi dul sëñ jërëjëf Mbacke wutunu nekk ci dara lu neex sëñ jërëjëf Mbacke loolu rek lañ bëggal ñëpp nag jërëjëf jërëjëf Mbacke wallaay Mbacke amuñu lay wallaay suñu tubaab ñaa ngi fi jërëjëf Mbacke rawatina jigéen ñi jërëjëf Mbacke soxna moomu ñoo ngi fi wallaay Mbacke soxna may mu ñaari may yu ñëpp ay sàll ay nit ñi nga xam ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nun nga xam ne moom ñoo ànd yonent bi jërëjëf ñoo yem jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ñooñu ne ne ñooñu am nañu na royukaay mm-hmm. ak suñu mm-hmm. waaye jigéen ñi mm-hmm. am nañu royukaay ka sëñ Tuubaa ñaa ngi soxna maa ngi fi mucc barki dem mel na war a mel nekk si la war a benn roy roy amul loolu Mbacké nekk si na nekk si li ñu bëgg rek jërëjëf Mbacké nan roy waa ka sëñ Tuubaa jërëjëf Mbacké ñoo moom i na ne nan rek jigéen jërëjëf jërëjëf Mbacké ñoo bokk ndigal li jërëjëf Mbacké jërëjëf Mbacké jërëjëf Mbacké jéem a góor suñu góor rek la ci jërëjëf Mbacké xal wi nu suñu Tuubaa bàyyi loolu sëkk jërëjëf Mbacké jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. waaye dañuy tàggat dañu ragal bañ a wàcce wàcc yoon woowu nag. waaw dinañ ko bañ a bokk taal. jërëjëf Mbacke. ni mu bëggee tegu ci yoon woowu yi. waaw dinañ ko bëgg a bokk taal. jërëjëf Mbacke. waaw jërëjëf Mbacke. dégg naa wax ca. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. jërëjëf. ndax xool ci waa Sëñ Tuubaa. jërëjëf Mbacke. bu mu jombal dara boppam. jërëjëf Mbacke ci lu baax. jërëjëf. bu mu jombal dara boppam ci lu baax. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke wallaahi Mbacke jërëjëf jërëjëf <laughs> jërëjëf Mbacke yàgg fi lool te wér bismillah waaw kon moom am xam na ci nekk. waaw moo tax yow na nga xam sa bopp. jërëjëf Mbacke. nekkal sa sëriñ Tuubaa rek. jërëjëf Mbacke. na nga xam sa bopp jërëjëf rek. du ma ko ñëblu ci dara. te it bu ma ñëblu ci dara. jërëjëf Mbacke. loolu rek am solo de Mbacke jërëjëf Mbacke. na ñëpp tàllal nag ñu may ko ba suba ak jàmm incha allah na ñëpp tàllal. Mbacke. Baye Seye indi suuf si indi. ini waaw dama ko bëgg